talaat fa bi. étincelle dëgg la. Mhm. dëgg du leneen. Mhm. su ma la ko waxee nag da bëgg sa émission gudd. Mhm. mais détails yi jaru ko. wa xul jaa al xaq. wa dahaqa al baatil. inna al baatila kaana dahuqa dëgg a ñëw. lu dul dëgg buy jógee da koy maap. gis nga. <laughs> benn bambara dafa ma soxlu am solo nee na ma xale bu góor bu taxawee di tuur ndox. Mhm. bu joxoñee di tuur. Mhm. fële saw mi di commencé. Mhm. xale bu góor waxambaane. ma toppal saw ma toq toq fu muy mujj. ci moom ci ay tànkam. dëgg ngi noonu. fen du be jaaw. li ma la mën a wax garantir la ko incha allahu taala. changement day am. ak lu mën a coûter nag. day am. ki ko yàlla doxal dox dogal ci moom nag mu ubbi ko ne ko yee xel yi mhm. yee xel yi yee xelu jeunesse bi ba ci mag ñi dugg si ci mhm. mais Mouhamed est-ce que mos nga mos nga gis ba nga juddoo ba léegi élection yi nga fi tase yow Mouhamed nga dem yëkkati sa dix mille francs ñëw ñuy pare ne nga ni maa pare ne ba pare damay joxe suma participation mhm. xaaral ba la kañ la 14 c'est pas dimanche. ah du dimanche. Mm-hmm. ba la ba dimanche nga xool. nga xool diaspora bi amul benn milite amul benn gis nga ñi ngay gis nii. Mm-hmm. bëriwul leader yu fi nar a dem ci diaspora bi de. xanaa nga bokk ci opposition bi. waaye nga bokk ci côté be. booy dem da ngay làqatu wala nga wut ay garde corps yóbbaale leen wala nga dem foofu wut fa ay garde corps wala ngay làqatu dugg ci hôtel yi. mais diaspora bi en unanimité ñoom ñëpp ñu ànd ne moom la ay boroomi xel lañ parce que xam nañ ni. leer de changement ci boppam ou l'heure de changement sonné na te kenn mënatu ko téye Sénégal dafay dugg dafay dugg parce que dëgg la te dëgg mook leer ak lëndëm ñoo yem gis nga lëndëm lu néeg bi lëndëm lëndëm Mohamed bu ñu nee tàyyi làmp bi léppay leer làmp nag tàkk na làmp lan la mooy làmp Sénégal ñu delloo ko li mu moom ci napp gi ci mbay mi surtout mbay mi. Mohamed est-ce que xam nga ni Sénégal tey tey fii nga toll nii. mën naa la waatal ci yàlla ni tey boo ma bu ñu bu ñu ko jaarale woon ni mu war a jaar xoolal liggéey bi ngay def doo ko soxla def nga sa liggéeyu bopp ba yàgg ba dem nga sa yoon bu yàgg. Mm-hmm. est-ce que Mohamed xam nga ni Libye bi fi Kadhafi nekkee bi fa Kadhafi nekkee. Mm-hmm. mais dafa xëy bi ñu leen embargo dafa xëy ne waa gis nga suuf si li ci yàlla def. Mm-hmm. defu ko fenn. yéen ñëpp dem leen ngeen dugg ci àll bi ngeen bay ñu financé leen gasal leen ay forage ñu commencé bay di bay li ñuy dundee. dafa nekk lu am solo bay li ngay dundee ba loolu nga mën ko jël génne ko yóbbu ko ci biti. mais Ousmane président Sonko wax na ci lu bari bi mu demee Casamance ànd nañoo man ànd naa ak moom Casamance. muy dem bay wax ni am na mën nañ dem ba créer ay monnaie yoo xamante ni. Mm-hmm. day nekk monnaie locale. Mm-hmm. mais loolu ba mu koy wax. ñi seen xol bon ak ñi ko comprendre dañ doon wax ni kii dafa bëgg indi ay séparation yu kenn xam mais. Mhm. fekk na boobu moom fi muy xalaatee foofa gaa ñi eggaguñu fa. gis nga ci wàllu justice bii. Mhm. ñu naan ay Ousmane eh, eh, nuñ ko ki tuddee écarté nañ ko c'est ni mhm. ñi koy wax dañu juum maa ngi dégg ci sa kàddu léegi nga ni conseil constitutionnel. nee nañ bokkatul. mosuñu wax ni bokkatul li ñu wax. avocat bi moo ko wax maître Clédor te maître Clédor mooy mandataire am. Mhm. maître li mu jàkkaarloog ñoom wax ko leer na nañ dañ bi mu leen laajee dañ ni ko mais mais li gën a garaaw sax mooy mais xam nga neuf points. Mhm. la ñuy la ñuy càmbar. neuf pièces waay bi mhm. ci njëkk mooy tey jii la ñu def pièce su parrainage bi. mais kii càmbar neuf pièces. ñu joxla benn enveloppe boo xamante ni. ñii dégg olof laay bëgg a wax ni mbir mi demee pour ñu xam. Mhm. ñu jox la benn enveloppe boo xamante ni dañ koo collé ba pare jël benn plastique bu ñuy tuddee sur. kole mhm. ko ci tëj ko. Mhm. dugal ci kele bi ñu ne enveloppe boobu kat buñ ko xasee ba collé ko ba tëj ko ci kanamu ñëpp. kenn amul sañ-sañu ubbi ko. lu dul ne dafa fekk ne. candidat bi ki mu wóolu ba yebal ko pour bu ñuy ubbi ki bi mu fekke ko kooku dafa war a ñëw taxaw ñu ubbi ko ci kanamam waaye kooku ñëwul taxawul nga ubbi ci gannaawam enveloppe bi ba pare xamuñu kuñ ko ubbi ku loolu kuy doxal yoon dana ko def loolu ku gérer yoon dana ko def loolu ban fan fan ngay dem di indi prétexte yooyu wala ngay indi lay yooyu di ko teg mënul nekk ci ñoo xamante ni dañ leen fonk ba tudde leen les sages mhm. looloo tax ñu ne la mbir mi ñoom bu ñu wàccee yoon te néewuñu sax dañoo wàcc yoon parce que jox nañ leen respect bu mat sëkk. Mhm. bu ñu demee ba tegg yoon mais am na fu ñu war a jaar ak ñu dellu siwaat yoon. léegi na nga wëlbatiku yàlla won leen boppam mooy lan. Mhm. nga ñëw ne mandataire bi muy maître Clédor ah Ousmane Sonko kat juróom-ñeenti pièces yi ñu ko laajoon am na benn pièce bu ci manqué. Mhm. mais benn pièce ñoom ni ñu jàppee ne moo manqué mais loolu manqué wul parce que ñoom li ñu jàpp ne mooy manqué ñaar la. ñaar la parce que gisuñu fa papier bi wane ni moom la on treize treize députés yi ne gisuñu ko fa dañu gis papier blanc boo xamante ni bind nañ ci treize députés yi ñu signé parrainé Ousmane Sonko te ñoom dañu waroon a ñun dañu waroon a dem CDE ñu jox ñu papier boo xamante ni dafa am matricule. ñu mën ci parrainé ak treize députés yooyu. Mm-hmm. ba ñu demee ñu lànkal ñu ko. te teguñu ko ci yoon. Mm-hmm. léegi bu ñu la lànkalee te teguñu ko ci yoon doo xeex. Hmm. donte gis nañ maître Clédor di fa buuxante. Hmm. mais dafa ànd ak buuxante yooyu dafay joxe signal extérieur. Hmm. ak biir réew mi ne am na lu xew fii li xew fii lan la mooy ni sa droit yi Ousmane Sonko ñu ngi ko koy xañ. nit ñi foofu lañ foofu lañ explication yooyu moo jàllul ci lu bëri. ci wàllu senegal laa wax mais bitim réew xam nañ lépp. xañ nañ ko loolu mais woon na maanaam. koo xamante ni dafa nekk ci wetam wane ni ah kii kat ñëw na pour jël si kayit woowa waaye kayit woowa kat ñi fi nekk ñoo ko ko xañ hmm. téléphoné leen leen ñu tëj seeni téléphone damay dugg ñu teg ci bunt bi ay takk der yoo xamante ni dañ ni leen bu kenn dugg fii hmm. waa ñu bindu kayit boobu boo demee hmm. dal na keneen ak get keneen bañ demee eh, ci ci conseil constitutionnel mais conseil constitutionnel kamu dal daf ko jox dëgg parce que daf ni ko ba nga demee waruñu la woon téye bañ la jox kayit wi. waa kayit woowu ñoom ñu jégg ko ñoom conseil constitutionnel daal di jubali ci kayit bi nga xamante ni mooy 30 millions yi ñuy déposé. mais 30 millions yi déposé nañ ko jox nañ leen li ñu leen war a jox. léegi lu ca des lenn donc su ma jumul attestation la wax. attestation bu attestation bi. mais leen joxoon mu def attestation. waa léegi attestation bi yow boo nee da joxuñu leen attestation waaye nag da nga am ngorug nag wëlbatiku ne ana 30 millions ya. kenn xamul fu mu ne. déedéet ah kañ xam nañ ko kañ yow yaa xamul fu mu nekk. Ah, dama kii dafa ñëw joxe ko kii génne dama koy delloo. déedéet déedéet demewul noonu dafa ni. Mhm. chèque bi. dañoo dugg. Mhm. ñu toog ñu recevoir leen nii jox leen kafe mhm. ñu naan ba pare. ñu dem ñu ne leen verser leen. ñu dem verser ba ñu dugal ñu jox leen seen reçu. quittance ñu génn bi ñu génnee ñu. remercier leen au ñu génn xaw ma ku leen woo xaw ma dañ leen a woo xaw ma ñu wëlbatiku. di dàqe kañuy dàqe muy ayib dafe mais jël na avion ba dem bitim réew léegi yow jël na avion ba dem bitim réew bu dellusee mais yóbbul ko seg bi yóbbuwoo seg bi yaa ngi téye xaalis ba signifié nañ jot nañ lu ñuy won ni dugg na ci compte bi waa mais loolu lu ci des loolu conseil constitutionnel war taxaw sax di ci suufeel boppam wala mu cee wax lu ko loo xamante ni nit ñi buñ ko xoolaatee dañ naan lii dafa am lu ci rax le fait que rek trente millions yi dugg na rek jeex na fan na dugg ci keesu nguur. ku ko doon laaj nguur moo doon laaj ku ko joxe ku mu ko laaj Ousmane Sonko la ko laaj. ku ko joxe Ousmane Sonko mandataire am moo ko joxe muy Ayib Daffé. Mhm. ana fu mu ko joxe nuñ koy misaal mu ne kayit ngi nii. te te te ki yore euh, maanaam secretaire général à la communication bu PASTEF di El Malick Ndiaye dem na sax ba wax ne maanaam dañoo wane relevé bancaire ba nga xam ne nii moom mooy wane ne xaalis ba dugg na. Ah, loolu laa loolu la lay expliqué léegi mooy ni gis nga. Mhm. booy def ak di xeex doomu aadama. Mhm. da nga koy teg ci dëgg. xam nga damay dégg ñu naan koy xeex na xeexe xel. Mhm. waa xel d'accord mais da nga koy teg ci dëgg ba pare soog a indi xel mi teg. gis nga usmaan Sonko président Ousmane Sonko. Mhm. li mu leen wax lu leer la xippi seen bët ngeen xool. lañu mhm. dem bu fekkee ni yoon bu ñu àttee yoon laa wax de Mohamed. Mhm. yoon wi réew mi tëral. buñ ci àttee amul jëmm ju mën a tere Ousmane Sonko nekk candidat te ñun ci yoon woowu lañu jaar ba fii ñu toog. ba fii ñu toog laa lay wax ni usmaan Sonko lenn luy wone ni du candidat binduñu ko fenn yéen diaspora bi laay wax la ak ñeneen ñi koy dégg binduñu woxuñu jëfuñu lenn luy tere Ousmane Sonko doon candidat. doole moo fi nekk waaye dëgg mën doole. d'accord imam loolu li ngay wax itam dina dina dina xaw xaw a naqaree comprendre bu ñu jógee ci euh, li xew récemment conseil constitutionnel invalidé la candidature Ousmane Sonko. waxu la ni deet daf la jox papier da nga gis papier bu ñu ko wane. maître Clédor dafa génn ne la dafa génn ne la. dañ ni manqué nañ benn papier. waaw mu ne leen mu ne leen enveloppe bi lan moo ko ubbi. waa loola da nga yaakaar ni Mohamed dañuy bàyyi enveloppe bu ñu ubbi noonu te ñu waroon ko ubbi ci kanamam. est-ce que xam nga est-ce que xam nga est xam nga tey jii nu ñu gën a rek. Mm-hmm. tey jii suñu clé yi clé yi yëpp clé yi yëpp dañ ko wutal code. clé yi ñu dem déposer nii. Mm-hmm. pour jomaay mën a jàll nii dañ ko wutal code. sécuriser ko comme ni ngay wutale sa téléphone bi code. kenn ci ñoom du ci am accès li fii euh, Amadou Ba mi nekk mandataire bu Jomaay. teewul mais buñ ci deful woon code mais kon musiba am. nañ ñu defoon bu njëkk rek lañuy def naka nga yow naka nga mën a toogee comprendre Pastef ak li mu daj ak ñi mu amee. ak li mu tëral ah nga wal ba tey ne way parrainage am dañ ciy dagg war na mottali ay quarante xaw ma quatre mille quelque. mais loolu loolu boo koy wax nii da nga koy wax nii rek mais xam nañ ni man bi ñuy wax ca départ ba laa ni leen xaw ma parrainage yan la ñuy dagg. mais ñaar moom gëm naa ko. Moustarchidine muy pire. ak bu Pastef. kenn mënu leen a kale ci parrainage. mënul nekk mënul nekk dama xam ne ay boroom xam-xam ñoo fa nekk. lañ ñee jàng bay kale nit ñi. Mhm. lañ ñee jàng ba koy jëfe pour valider nit ñi. Mhm. jàng nañ ko ba jàng lu leen supérieur la preuve est <laughs> gis nga ci changement bi ñu defee point de presse. Mhm. xale yu tuuti ñëw di leen décortiquer fi nga xamante ni dugg nañ fa erreur yi ñu def. nga xamante ni dañ ko teg ci écran bi ku ko gis da ngay ruus. da nga naan Sénégal est-ce que réew la mais ñoom yaakaaruñu woon ni loolu am na. bi ñu demee nag ba mu des ñu war a déposer suñu quatre mille et ñu dajale ko ba defal leen lu ëpp 4000 double ko. ba pare nag sécuriser clé bi. Mhm. def ca code. xam naa nag du ñàkk ñu jéem a essayer dugal génn gis ne ah kii kat vérifié nañ ko. et mu mel ni euh, ci bi ñuy mottali parrainage yi ñoom dañoo miser totalement si diaspora bi ngir euh, lu lu assurer ci wàllu parrainage bi. ah xam nga diaspora léegi la ñu dugg tuubaa dugg Dakar yooyu yëpp ak dugg ba Casamance. Mhm. yooyu yëpp pour bëgg a wone ni. popularité bi Ousmane Sonko bi ñu koy coowal nekkul. Mhm. mais nañ bu ñu yàkkamti. d'accord bu ñu yàkkamti élection yaa ngi ñëw Mohamed wala campagne baa ngi ñëw. bu ñu bëggee sax ñu jël benn chaise comme ni ko defee bi ñuy def euh, bi ñuy def kii ni koy tuddee ti bi waa euh, Ousmane Sonko yi di def seen investiture. Mhm. dañ jël benn chaise dafa benn kaala. waaw bu ñu bëggee sax ñu jël benn 4 kat teg fa benn chaise bind ci chaise bi Ousmane Sonko ñu génn ci mbedd mi keneen taxaw ñu xool mbir mi jeex na. y a pas amu fi. Hmm. li ma dox bee boo nga jàpp ko combat amu fi amul combat. mais yow yow mi toog nii sax da ngay poser question yow am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy poser question ba léegi naan est-ce que am na wala amul. mais élection bu dem ba desitul lu dul un mois. Mhm. mais xam nañ ni am na fu am na fu nit ñi féete nit ñaa ngi daas fanaanal. Mhm. toog waxuñu la dara. sur dix personnes yoo taseen. huit personnes yoo Ousmane Sonko lañ àndal. de seddali ko ci opposition. Mm-hmm. d' accord. ñu ñu ñu ñu gis euh, daanaka. askan wi mu mel ni dañoo am beneen taxawaay bu bees parce que xëy na ci circonstances yi euh, maanaam bu ñu jàppaan ne ñu ngi xañ ak euh, àq Ousmane ak àqam dafa daan am taxawaay bu ñu daan amee muy wàcc ci mbedd meeg xeex ak yu ni mel mu mel ni jamono ji askan wi dafa teg loolu côté mise ci benn mbir mooy dem ci ay élection présidentielle mu doon taxawaay boo xam ne ñu bëri jàngat nañu ko comme taxawaay maturité naka nga jàngatee tey loolu lu mën a xew nit ñi benn discours la ñuy tenir mooy nañu dem ci élection yi dafa am état nu muy doxee. Mm-hmm. xel ak doole. Mm-hmm. état. Mm-hmm. xel ak.